ñoo ngi àndaat ak ci téere bii di kitaabu tawxiid di jël buntu ñaar fukkeel ak ñett buntu bi di jàngale maa jaa fi sixri mooy li ñëw ci njabar maa jaa fi sixri mooy lan moo ñëw ci njabar baat boobu di baatu njabar as-sihr buñ koy firi ci làkk arab luxatan mooy maa xufiya mooy lu nëbbu lu nëbbu loo xam ne dafa nëbbu ba pare sew ay mbir la yu nëbbu yu sew yu lëndëm yoo xam ne looloo tax ñu tuddee ko sexr mu ne bu ngeen di xool sax di fàttaliku di ngeen gis baat boobu ñu tuddee xëdd te mooy asaxar mu ne boobu da gis ñoom ñaar kee si la sa lu tax bee dañ koy def li aaxiri leyli ci guddi gu mujj li anna al afaal allati taqa'u fihi takunu xafiya ndax kii jóg di xëdd yooyu muy def ay mbir la yoo xam ni dafa dafa nëbbu guddi la kenn gis ko même sax buy jógee day bañ a def ay ay biir wi ngir lëj nit ñi yëg ne am na lu muy def mbir yu nëbbu mu ne wa kazalika sumiya assaxuur mu ne loola tax ñu tuddee ko xëdd li maa yuukalu fi axiri leyl ndax ñu ngi koy lekk ci guddi gu mujj ah, xaaju guddi gu mujj loolu moo tax mu nekk mbir yu lëndëm mu ne fa kullu shay'in xafi sababuhu sumiya saharan mu ne lépp loo xam ne dafa làqu dafa lëndëm dañ koy tuddee sixr mooy njabar loolu boroom xam-xam yi jàngale làkku arab ñoom noonu lañu déggee njabar su fekkee ci sharia islam la nag fa innahu yunqasimu ila qismayni boroom xam-xam yi xaaj nañ ko ñaari xaaj moom njabar xaaj bu njëkk gi ñu ne njabar mooy aqdun ay pas-pas la baat bi jàngeen ko ci suuratul falaq wa min shari nafathaati fi luqat ay pas-pas la yu njabarkat bi di fas ci ay wëñ ak i buum ak i xaaw ak i pettaaw ak i laar ak ak ak ay pas-pas la waaye wa ruqi ak ay jat kenn du ko tuddee mocc waaye ay jat la parce que bu dee mocc alxuraan ngay jàng wala xadiis yonent bi loolu mooy mocc kii mocc day wax lu leer lu nit ñi xam lu amul benn njabar amul benn bokkaale amaa jat nag mooy baat yi nga xam ne waajaa ngi koy waxte te du dégg lan la kon pas-pas la ay pas-pas la yu ñuy fas ak ay jat yu ñuy jat ay qiraat ay njàng yu ñuy jàng la wa talaasim xam ngeen luy talsam mooy carré carré yooyu ngeen di gis ñuy def ci feuilles yu weex yi ak étoiles yi yooyu ngeen di gis ñuy def ci kayit yu weex yi loolu moom mooy njabar xaatim yi nee na lan moo tax nag ñett yi njabarkat bi di ko def ñett yi lan la ñett yi lan la hmm. wax naa ko léegi léegi pas-pas yi jat gi ak xaatim ñett yi lu tax njabarkat bi di ko def yatawassalu biha saahiru ila istixdaami shayatin da koy def ngir seytaane mën koo mu mën a utiliser seytaane seytaane mën koo jege si fi ma yuridu bihi dararul masxuuru ngir mu mën ko envoyé ci ki muy njabar mu loral ko ko gis nga lool moo tax ndeke njabar lu garaaw la da toog nekk sa kër njabarkat bi nekk këram envoyé la ay seytaane envoyé la ay jinne jinne yi ñoo lor la hmm? lan moo tax loolu ay pas-pas yu muy def ak ay wax yu muy wax jàng yu muy jàng ak ay xaatim yu muy bind sa turut sa turu papa ak sa wala sa yére buñ buñ ko jox wala sa dàll wala dara lu bàyyeekoo ci yow sa kawar wala sa wee looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne bu ngeen wotoo na ngeen suul kawar gi bu ngeen daggee wee yi na ngeen na ngeen ko dajale suul ko ndax balaa njabar kinne yi di ko yóbbul njabarkat yi moo tax da nga koy suul mu ne lakin qad qaala taala mu ne waaye yëpp loolu yëpp nag borom bi subhanahu wa taala wax na ci quran ci suratul baqara aya 102 nee na wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah ñooñu loolu ñuy def pas-pas yooyu mocc yooyu xaatim yooyu ñuy def jëmale ko ci yow na nga yëg ne yow jullit bi ñoom munuñu la cee lor lu dul mu neex yàlla ndax moo tax jullit bi war a laqatu ci yàlla di def ay askaaram jàpp ci borom bi subhanahu wa soo jàppee ci moom ñoom mënuluñ la dara olof yi dañuy wax ne soo diggee ci kër xaj bi di la mbaw boo bëggee mucc nooy def ah làq ci borom xaj bi ba walla ko ci borom xaj bi rek mu ne ko waaye eh, xaj bi yem seytaane xaj la kan ma ko moom yàlla kon suñ ko envoyé ci yow soo bëggee mucc seytaane nooy def laqatul ci yàlla nga mucc ci seytaane ak njabarkat bi mu ne maanaam loolu première firi ci sharia ni mu firee njabar ñaareelu firi bi mooy udd iya ay ñaan la wa aqaayir ak ay médicament hmm? tu assiru ala badalil masu yoo xam ne day jeexital ci yaramu ki ñu njabar maanaam njabarkat bi day jël cuuraay xam nga cuuraay cuuraay la ne la suur ko lii fexeel ba mu suuru lii fekk ci biir cuuraay bi am na lu ci def nga suuroo ko rek feebar mu xeeñ waa ji rek waa ji feebar walla mu def ko ci lekk walla mu def ko ci wala mu def ko ci wala mu def ko ci ndox mi ngay sangoo mu ne fexeel mu sangoo ko rek walla mu def ko ci sa dàll mu ne fexeel mu sol ko rek soo ko laalee rek mbir yi daal di ci sa kaw mu daal di jeexatal ci sa yaram benn wa aqli ak sa xel ñaar la lay def suñ la njabaree benn njabar bi day jàpp sa xel mooy waa ji dof walla benn njabar bi jàpp sa yaram nga daal di feebar wa iradatihi wa maylihi ay njabar gi dalay jàpp selon ki la njabar li mu ci yow ak bëgg-bëggam ak li mu namm ci yow noonu la la njabar bi di jàppee fa tajiduhu yatasarraf wa yamil wa huwa ma yusamma indahum bisaraf wal ataf nga waa ji commencé nekk beneen doomu aadama changer comportement am na benn femme boo xam ne dafa bëggoon jëkkër ji bëggul jëkkër ji takkal ko beneen wujju mu dem ci njabarkat bi mu ne ko damaa bëgg sama jëkkër bu mu buuseeti bu mu buuseeti ah ah njabarkat bi daay defar li muy defar jox ko mu ñëw suul ko ci kër gi ci jardin bi jëkkër gi léegi bu xëyee day sangu rek dootul liggéey daal toog day sangu ba set war a liggéey jël journalam toog ci salle bi dootul wax ak kenn di toog rek di liir du sonnee dem tëdd ah ba liggéey ba ñu ñëw wax wax ba sonn mënuñ ci dara ñu dax ko femme bi dellu ci bu xaaba bi mu ne ko waa yow ah yow kii man dama ne woon rek pour mu toog mais mooy bu mu indi kenn rek laa ci nam mooy bu wàccee ñëw toog mais yow li nga def yow da ngaa daa def léegi génnatul kër gi mu ne ah yow yaa ne ma bu mu buuse mu ne man nam mu ma ci woon bu mu buuse mooy dama bëggoon rek mu toog sama wet mu ne ah mu ne da ne woon daal na toog kon dama nga indi affaire bi mu ñëw ñu gas fi ñu ko suuloon ñu seet ba sonn lu ñu mujj mooy buddi gason bi ci jardin bi yëpp gisu gisuñu affaire bi xamuñu fu mu nekk ba waa ji noonu la toogee ba jële ci feebar ba faatu génn tur kër gi mu ne ne njabar baaxul lu bon la yëfu caay-caay la yëfu seytaane la yàlla bëggu ko diine lislaam santaane ko yonent alayhi salaatu wasalaam diglewu ko mu ne fa yajaalul insaan yanatifu ala zawjatihi da gis nit njabar borom këram wala góor njabar jigéen su ngeen dégloo semaine bi rajo déglu naa benn rajo bu tudd RFM ñu def benn reportage ñu ne góor ñi dañuy kànnaar jigéen ñi déglu nga ko man déglu naa ko semaine bi ah yow gis nga ko kii moom nee na dégluwu ko du koo gis maanaam góor day bëgg benn xale bu jigéen xale bu jigéen bi bañ mu dem njawar ko kànnaar ko xale bi topp ko comme ni xar di toppee boroomam wala ni xaj di toppee boroomam topp ko noonu mu ne hatta yakunu kal bahima mu topp ko comme xaj ni muy toppee boroomam taquuduhu kamata tasha mu koy yóbbu fu ko neex di ko def loolu ko neex yenn saa yi sax waa ji takk ndaw si kooku sax tane am na koo xam ne du takk saa yu ko soxlaa rek day wax dara tijji kaanaar bi tuf li turam tëj ko su ko wooyee mu ñëw mu sëy ak moom bàyyi ko mu dem su ko defee nit ñi naan waaw yéen est ki jigéen kii normal na fekk waa ji da koo njabar da koo xërëm am na ci ñoo xam ne lay njabar xërëm la ba bu ñëwee ci yow lu la wax rek nga def ko lu la wax nga def ko am na ci sëriñ soo xam ne dañuy tàqale sax diggante ndey ak baay daal di nangu doom ji ci ndeyam ak baayam comme tey fii may wax ak fii ma toog nii maa ngi carte visite kilifa goo xam ne dañ koo tàqaleeg ay doomam tey la ma woon doon waxtaan ak man ci loolu pour ñu dimbali ko pour doom yi dellusiwaat ci moom fii ma toog di wax ak yéen carte visite mag nii sama poche nga xam ne kon. nekkul ay mbir yu ndaw mbir la yoo xam ne ab jullit daf ko war a waaj préparé ko ba buñ jógee jëm ci moom mu bañ ko daal tey ci dëkk bi nu nekk xërëm ak njabar ak mbirum sëriñ ak fa fuufaak dafee am doole lu tax parce que ñëpp xaalis lañ gëm moo tax ñëpp jublu ci mu ne ni nga gisee jigéen ñi di ko def góor ñi noonu la ko góor ñi tamit di ko defee jigéen ñi fa yusiru fi badanil mashuuri mu jeexital ci yaramu ki ñu njabar bi idaafihi shay'an fa shay'an ata yuhlik yenn saa yi tàmbali ci bopp buy metti di wàcc dem ba ci bët yi dootul gisati muy wàcc dem ba ci nopp dootul dégg muy wàcc ba ci gémmiñ gi dootul mën a wax muy wàcc ba rey ko day augmenté di augmenté njabar gi di augmenté di augmenté ba waa ji xëy dee léeg ñu njabar ni tag ko ci pitax luy naaw saa yu picc bi déparé rek waa ji départ waa ji du toog lu dul picc bi takk ci garab te fu picc bi jëm mu jëm fu yenn saa yi nga gis dof bu dox diggante Sénégal ba Mali wala ba Guinée jox ci àll bi rek di dox parce picc may naaw rek mu topp loolu moo koy waral yenn saa yi nga gis ñu def njabar sànni ko ci géej yenn saa yi nga gis ñu def lu ne ngay gis lu ne ngay gis yenn saa yi ñu def njabar yóbbu ko ci ay armeel gas bopp néew bi bu mu xóot daan na yaa saahibu haazal qabr haada amaanatun indak yow borom bàmmeel bi leen dénkaane bu ma la dénk la ba yowmal xiyaam waaw yenn saa yi nga gis koo xam ne dafa def dara buggul ku ci wax mu dem ñi defaral ko ay njabar ne ko danga koy sexal néew da koy sexal ku dee mu dem ci armeel yi wax ak ñi garde armeel yi ñu fexe ba gas ba gis boppu néew bi ŋaam gémmiñ gi dugal ci téere bi kaste gémmiñ gi suulaat ah? am na benn film vidéo bu ñu ma envoyé benn waay boo xamante ne dañoo suul ku dee mu bàyyi ba guddi mu ñëw di dagg awra ku dee awra bi laa wax de ku góor gi muy dagg awra bi ni mu gasee bàmmeel bi dugg di ko di ko dagg bàmmeel bi màbb ci kawam mu dee seetaan nga vidéo bi nit ñi bi ñu xëyee ñu ñëw gis ko waa jooju waa dëkk bi bi ñu ko génnee dañ ko mujj a lakk lakk dañ ko lakk yooyu yëpp dangeen di gis lan moo ko waral mooy njabar léeg nga gis sàcc yi sàcc yu ngand yi laa wax de waxuma yu ndaw yi yu ngand ngand yi buñ buggee détruire banque wala trésor dañuy dem ci njabarkat yi ñu xërëmal leen ne leen dem leen ci armeel ngeen fexe ngeen indil ñu garab goo xam ne reen bi dafa traversé néew garab goo xam ne reen bi dafa jiggi ku dee maanaam nit dafa dee ñu suul ko ci wetu garab gi garab gi màgg reen bi ron néew bi jàll ñu gas garab googu ba jot reen boobu dagg ko rocc ko indi ko njabarkat yi defal leen ci lañ koy defal fépp fu ñu war a sàcc bu ñu indee bant boobu ruur ko dugal ko ci wetu miir bi foofu entourage boobu la fa nekk ñépp ay nelaw kenn du buuse lu jël li ñuy jël dem seen yoon waaw nga xam ne mbir yi du lu ndaw de ngeen xam ne dëkk bi yu bari mu ngi xew njabar kese la du leneen day nit ku bàyyi ndeyam ak bàyyam topp kenn lu ko waa ji wax mu def ko mu def nga gis ku bàyyi jëkkëram topp keneen nga gis gis lu ko waral nga gis koo xam ne lu mu yor jox ko ñeneen te du jox ko waa këram lu ko waral ko njabar ah du dee ngeen fi ci benn waaye buñ naan xaw ma ay yuuri xajak yuuri nit la wawal ba mu wow wala dégluwu leen ko maa ngi yéen yéen a ko dëggandoo di ñu ko ci ay ceeb jox ko nit ñi ñu lekk def ko ci ay cere jox ko nit ñi ñu lekk ku lekk loolu foo jëm <laughs> nooy mel ni xaj bi mel ngay mel wala mel na nu yàlla di sàmmal nu boppam doomu ndeyi mbokk jullit yi nee na wa fi tasawurihi bi an yataxayala al asla asiya ala xilaafi ma hi alayhi njabar nu ñuy xamee jàpp na nit mooy waa ji day toog ay image nekk ci kanamam muy wax ngelaw li nit ñi dañ daan waaw ki ku muy waxal wala kii muy def nii fekk moom mu ngi koy gis ay mbir ñu ngi koy feeñu yéen yi du ngeen gis loolu ay mbir léegi lay gis du nelaw du toog wallahi alazim léegi léegi ci ngoon la ma benn jigéen woo mu ne ma benn frère am loolu moo ko dal mu ne mu ngi ni ñuy yóbbu bi Bissau ma ne ko lu tax mu ne dañ leen am na ñu ko fa mën a dindi léegi léegi mu ne dama ah ma ne ko mënoon nga maa woo avant ngeen ko yóbbu mais malasaf léegi léegi ci ngoon nga xam ne dëkk bi njabarkat yi kese ñoo fi nekk njabarkat yi kese kese kese kese ñoo fi bari waaw lu tax da gis ñi ci bëgg ay promotion di ñëw ci tele yi waaw xoolee émission Reug Reug ay njabarkat kese lay invité rajo yi tey ay gisaanekat ak ay seetkat njabarkat rek moo ci nekk dangay ngay ut benn journaliste rek neexal ko su ko defee mu invité la nga ñëw. mu defal la promotion nga joxe sa numéro caaxaankat yeeg ñi bëgg fo yëpp ñi gëmul yàlla ñi gëm ay buxaaba yëpp jël sa numéro commencé. xoola waa ji génn tele naan kawar gi kawaru jinne la lii kawaru jinne la man dama am jabaru jinne eh li ko yox dama am jabaru jinne <laughs> la ilaha illallah jabaru jinne wala ku yox loolu ñaata yoon ngeen koy dégg. te noonu yàlla sàmmal boppam mu ne mbir yooyu day jeexital ci waa ji nga gis ko mu jeexital ci yaramam waaye mu jeexital ci xelam yenn saa yi sax fa rubama yasilu ilal junun wal iyaazu billah yenn saa yi mu dem ba waa ji dof dof complètement dof nga gis ku doon liggéey liggéeyam xëy dof ko amoon këram xëy dof jigéen ju ñu takkoon mu xëy dof doom ju nekkoon di toppatoo ndeyam baayam xëy dof complètement lu tax parce que dafa am ku nekk fii dafa am benn waay ku muy liggéeya ndool wala benn benn jigéen bu mu bëgg benn waay nangam nangam ñu xërëm waaju waaji dof mbokk yi njabar fa sihru qismaani njabar ñaari xaaj la shirkun bu ci benn bi bokkaale yàlla la wa huwa al awwal boobu mooy premier pour njabar gi mën a jàpp pour waa ji mën a nekk njabarkat day bokkaale yàlla day jël alxuraan dugal ko ci duus wala mu bindee ko mbërëg xam ngeen mbërëg luy mbërëg mooy jigéen bu gisee mbaax mu jël deret boobu bindee ko walla mu saw ci kaamil wala mu saw ci jàkk waaw ah, wala mu julli am janaaba maa dangay def loo xam ne yàlla pare na ci yow maanaam da ngay kontaan jinne yi waaw ah, ay kontaan loo jinne yi soo kontaanloo jinne yi merloo yàlla lépp loo bëgg jinne yi defal la ko boobu mooy bu njëkk bi ashirk wa huwa al awwal allazi yakunu bi wasatati shayatin bi da jokk ak seytaane yi nga jéem leen a jege nga sori yàlla nga jege seytaane yi ñu reyloo la nit la reyloo la sa jabar mbaa sa doom wala sa yaay mbaa sa baay wala def loola yi ma waxoon sànq wala ñu dagg loola benn cër ci sa yaram baaraam wala loxo baaraamu tànk <laughs> da ngeen gis ci dëkk bi ñu bëri ñoo xam ne amuñu baaraamu loxo wala amuñu baaraamu tànk wala amuñu nopp hmm? wala amuñu bët loolu la loolu la da def sacrifice pour seytaane yi kontaan ci yow nga jege leen yaabuduhum nga jaamu seytaane yi wa yataqarrabu ilayhim nga jege leen pour lan li yusallita alal masu pour nga mën leen xiirtal ci ki nga bëgg gaañ ki nga bëgg njabar waa dangay def yu bon yi pour boo envoyé seytaane bi ne ko demal diw mu ngi place sàngam nga reyal ma ko am na benn xalifa général bu mag ci Sénégal dafa mere woon benn oustaz mu dem yóbbu turu oustaz bi ci benn njabarkat njabarkat baa ngi dëkk parcelle mu ngi dëkkoon parcel génn na àdduna dal na ko yàlla yërëm parce que tuuboon na njabarkat bi xalifa général bi woo njabarkat bi ne ko dama bëgg nga reyal ma diw mu ne ko ah mu ne ko loo moo laaj ma jox la ko mu ne ko jox ma deux millions mu ne ko un million avancé ngi nii bu dee nga ñëw ma fay la waa ji daal jël avance bi bàyyi ba guddi dafa amoon benn këll goo xamante ne këll gi bu bindee sa tur def ko ci këll gi dugal ko ci ron lal gi buy fajar ngay dee waaw buy fajar ngay dee kum def lool rek buy fajar nga dee waa ji daal di jël xaalis bi bàyyi bu guddi mu bind turu ustaas bi daal di koy def ci këll gi dugal ko ci noonu lal gi mu tëdd guddi rek mu gént benn ponkal jóge ci asamaan si waa ci ñëw fekk ko fi mu tëdd yëkkati ko ba ci kaw daal koy yóbbu ba ci géeju parcelle nuur ko ba ci biir génnewaat ko nuural ko génnewaat ko nuural ko génnewaat ne ko boo bàyyiwul diw su ma ñëwaatee bu ma la nuuralee fi du ma la génne lu dul nga dee daal di koy rek waa ji daal di tiit yeewu ci kaw la la waa ji yeewoo mënatul nelaw mu mu yërndu ronlal gi di xool këll gi gisul këll gi mu tiit waaye ba fajar jot bi mu jullee ba pare mu ne xaaral ma xooli comme parcelle rek mu ne xaaral ma xooli géej gi ma waa ji doon dugal muy doxantu yor kurusam jëm ci géej gi mu dajeeg ay taalibe yu yalwaan yor këll gi taalibe yuy yalwaan jóge géej yor këll gi mu ñëw ne leen eh, fu ngeen jëlee lii ñu ne ko fee lañ ko fare ci tefes gi mu ñëw xool muy géej gi ko waa ji doon nuur mu ñibbi këram ñii mu toog xelam dalul mu jubal ñëw di laaj di laaj beegi ci kër ustaas bi mu ne ko dama ñëw pour nga baal maax kooku ne ko ah doo xamuma xamuma la lu ma lay loo ma def ba ma lay baal mu ne ko damaa bëgg nga baal ma kooku ne ko ah man du ma la baal lu dul nga wax ma lan la mu ne ko dafa am benn kilifa diine bu waxoon naa la rey bi mu jógee di la njabar nag parce que man dama yàgg naa koo def liggéey dama ko daan liggéey lu bari def naa ci lu bëree bari léegi nag waaye yow moom bi ma jógee bu koo def ah dañ ma ne bu ma la bàyyiwul de du baax ñu nag mu ñëw di la baal wax ah, kooku ne ko ah dinaa la baal de waaye day am sart mu ne ko luy sart bi mooy nga tuub bàyyi njabar ma baal la boo ko bàyyiwul du ma mu signal ustaas bi tuub daal di bàyyi njabar di ñëw ci moom di jàng alxuraan ba ni ko yàlla moomee noonu la tuubee gis ngeen yàlla namoon mu daal di gindeeku mbokk yi njabar ki koy def da koy def ngir jege seytaane yi jaamu leen bégloo leen kontaanloo leen ngir mën a xiirtal seytaane yi ci ki muy njabar kooku mooy njabar gu njëkk gi ñaareelu njabar mooy udwaan wa fisq kàccoor ak banditisme moo ciy dugal nit wa huwa saani allazi yakunu bi wasatatil adwiya ki koy def kële gis ngeen li mu utiliser mooy lan la def lan la def moom lan la def mooy yu bon la def dem àll ba ci jàkk saw ci wala dem àll ba ci kaamil wala jël deretu jigéen binde ko alxuraan walla julli jublu sow walla naan deret wala rey nit kooku yu bon yooyu la def kii nag moom deful loolu waaye lan la def ay cuuraay la jël def ci ay wax wala ay sungufak walla ay reen mais mu rax ci leneen lan la def waaw wa nahwiha wa bi haza looloo tax mbokk yi at taqsim allazi zakarnahu natawassalu bi ila al mas'ala muhimma xaaj bi ñu xaaj njabar ak njabarkat yi loolu moo ñuy yóbbu ci benn question bu am importance wa hiya hal yukfaru sahir mooy ndax njabarkat yéeféer la wala du yéeféer question bi moo ñuy yóbbu ci ñu mën a àtte njabarkat ñu ne yéeféer la wala du yéeféer hal yukfaru saahir aw laa yukfar dañ naan yéeféer la wala du yéeféer <laughs> ixtalafa al ulama fi hada ahlul ilmi boroom xam-xam yi dañoo wuute ci ñaari masala yi fa minhum man qaala innahu yakfur ñenn ñi ne ne njabarkat yéeféer la wa minhum man qaala innahu laa yakfur walakin at taqsimu saabiq waaye xaaj bu njëkk gi ñu ne yéeféer boobu masala moo tax ñooñu ñu ne njabarkat yéeféer la ndax njabarkat bi seytaane la àndal seytaane lay utiliser ba moo tax ñu ne fa innahu yakfur li annahu ya'ti bizalika illa bi shirk la ya'ti bizalika illa bi shirk ndax moom mënul def njabaram gi lu dul mu bokkaale yàlla su fekkee kii njabar balaa njabar gi di mën a nekk foog mu bégloo seytaane foog mu weddi yàlla foog mu def xërëm am na fi ñoo xam ne duñ julli jàkk wala leen seytaane bi wax mooy bu leen dem jàkk am ñoo xam dañ leen di wax ne bu leen julli waxtu yi juróom am ñoo xam dañ leen di wax ne bu ngeen demee julli ji bu leen jàpp am na ñoo xam dañ leen di wax ne dangeen di bàyyi arkaanul islaam benn bu leen dem màkk xoolal sëriñ ci Sénégal ñu ci bari duñ dem màkk seetlu leen loolu wala aka bëri ci xalifa aka néew ci xalifa général ñu ñuy wax alaaji bëri ci ñoom duñu aji am na ci ñoo xam ne duñ julli ji a jàkk duñ dem mukk jàkk bu ñu toogee ba julli jot dañuy jóg dugg seen biiru néeg nit ñi julli duñ julli ci mbooloo mi am na ci ñoo xam ne <laughs> dañ leen di takkloo jabar yu bari ñu ñu ñu dépassé lislaam wax ndax pour nga seytaane da ngay yàlla bëggul da ngay bàyyi wala nga bàyyi benn ci waxtu yi dootoo ko julli walla doo woor weeru koor wala nga yor jabar yu bari yu ëpp la charia wax wala ngay jël kaamil ju ko duggee ci biir duus walla ngay julli cent ja cent sept benn xale bu jigéen woo na ma téléphone mu ne ma man sama jëkkër jii may séyal léegi daf ma njabar ma ne ko nan la la njabaree mu ne ma sa puisque damaa demoon ci moom am na benn waaye bu ma doon génnal affaire bi yàgg ma dem fa pour mu defal ma dara waa ji gaaw maa takk mu détourné ma ci boppam takk ma moom mu ne ma de de seetlu naa ci moom ne day julli te day am janaaba mu ne ma seetlu naa ko ci moom du sangu set day ànd ak man sëy tëdd julli jot mu jóg julli sans sangu njabarkat noonu lay mel pour bu fekkee njabarkat bi nag nii la mel kooku yéeféer la waaw yéeféer la bu ñuul kooku fekkee nii la mel atteem ci lislaam mooy fa innahu kaafir yéeféer la loolu moom amul benn sikki sàkk lu tax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci mulki suleyman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة لا تكفر borom bi nee na subhanahu wa taala ñoom njabarkat yi dañoo topp la seytaane yi doon jàng ci nguura ak suleymaan yàlla nee na suleymaan weddiwul woon yàlla de waaye seytaane yi ñoo weddi ñoo doon jàngal nit ñi njabar la yàlla wàcce woon ca ñaari malaaka ya ca baabel ci ñaar ñoo ñu tudd haarut ak maarut ñoom ñaari malaaka yooyu daamuy jàngal kenn lu dul danañ la wax ne ñun de fitna lañ wa maa yuallimaani min ahad hatta yaqula inna maanaanu fitna fala takfur bul jàng lii xam-xam bii de ku ko jàng yéeféer ngay doon bul ko jàng boo bàyyee nga dem boo nangoo ñu jàngal la ko kon xam-xamu njabar njabar goo xam ne ki koy def ah weddi yàlla la saa yoo weddee yàlla rek nekk nga yéeféer donc njabar googu ak yéeféer la mu ne bu fekkee ne noonu la beneen wax bi borom bi subhanahu wa taala wax ne wa ma hum bi daarina bihi min ahad illa bi iznillah wa yataallamuna ma yadurruhum wala yanfauhum wa laqad alimu laman ishtaraahu maa lahu fi l-axirati min xalaaq fekkee ne nit ki nii la mel moom ab yéeféer la ñaareel bi mooy man kaana sixruhu bil adwiya wal aqaayir wa nahwiha fala yukfar walakin yuctabaru aasiyan muctadiyan su fekkee keneen ki nga xam ne day njabar moom njabaram du ci affaire seytaaneeg yu ñàng yooyu ñu doon wax sànq lay def ay ay cuuraay lay defak ay gisaane lay defak ak ay pettaaw lay defak ak ay reen ak ay sunguf ak nee na kooku kenn du ko ne yéeféer la waaye dañuy jàpp ne mooykatu yàlla bu jéggi dayo la <laughs> ñaar yëpp nag est-ce que tanante na moykatu yàlla bu jéggi dayo ak yéeféer <laughs> daanaka sorantewun de ndax moykatu yàlla bu jéggi dayo bu dee fu jëm kii njabar tamit bu dee fu jëm kon sorante wuñ waaye bugguñu nga wax kee ab yéeféer la bu fekkee nag léegi dañu ne rey islam dane rey nañu rey nañu rey njabarkat wa amma qatlu sahir fa in kaana sihruhu bil adwiya wal aqayir wa nahwihima fala yukfar walakinahu yuctabar asiyan muctadiyan comme li ñu waxoon léegi bu dee njabarkat bi daal yi muy utiliser mooy yu garaawul yële la waaye day njabar dañuy jàpp ne kii mooykatu yàlla la bu garaaw bu fekkee nag amma qatlu saahir fa in kaana sihruhu kufran qutila qatlatu ridda bu fekkee njabarkat bi njabarkat yi muy utiliser njabar gi muy def dafay génn nit ci lislaam dañ koy rey rey ku génn ci lislaam dañ koy rey gis ngeen kon njabar ni mu doy waar lan mooy àtte njabarkat boo ànd ak seytaane luy àtteem mooy day nga yow da génn ci lislaam dañ la war a rey yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne haddu sahir as-sayf mu ne illa an ya ndare nag mu tuub su tuubee ci wax ak jëf ah ah mënees na koo jéggal bañ koo rey illa an ya tuuba ala al qawl bi qubuli tawbatihi wa huwa sahih bu fekkee ne tuub na tuub gu dëgër gu dëggu ñu bàyyi ko bu fekkee deful loolu dañ koy rey wa in kaana sihruhu nag duna al kufr qutila qatla saa'il ay qutila li daf'i azaahu wa fasadihi fi l ard su fekkente ne ba tey njabar gi muy def mooy njabar gi waxoon sànq dañ koy rey la lu tax ñu koy rey ndax yu bon yi mu def ci kaw suuf ak yàq gi mu yàq fekk ñaari nit ñuy ànd di sëy nga taqale leen fekk doom ak baayam nga taqale leen fekk kuy liggéey nga bàyyiloo ko liggéeyam dañ lay rey ndax yow yàq yàqkat nga suñ la bàyyee ci kaw suuf si da ngay yàq suuf si dañ lay rey wa ala haza ayuha al ahbab fi qatlihi ila al ijtihad wa zahiru nusus allati zakaraha al muallif annahu yuqtal bi kulli xaal nee na ñun ñëpp nañu ànd mbokk jullit yi ñu xam ne rey gi ñu wax ne dañoo war a rey njabarkat dafay dellu ci ndigalu dafay dellu ci ndigalu imaam ki jiite jullit ñi moo war a sàmm diine ji ba képp ku ñu yëg ci diine ji da yàq da ngay njabarkat nga dangay ngay yàq société bi ñu jël si dóor sa baat mu dagg tey nag lan moo tax njabarkat yi bari kon lislaam bi moo amul ku ko sàmm gis ngeen tali bi am ko sàmm tali bi tali bi am ko ko sàmm tali bi oto ciy daw def nun def danoo normal wala lu tax ndax am na kuy sàmm tali prix yi ñuy jaay ci marché bi dafa normal wala normalul lu tax am na ku koy sàmm gis nga dëkk bi mu ngi dox ci selon que ñi koy sàmm ni mu leen neexee na fa jaar wala lu tax parce que am na ñu ko jiite di ko sàmm lislaam bi nag lu tax mënul dox kenn sàmm ko dañ ko bàyyi rek ku nekk loo neex def waaw waaw lu lu neex rek loo ku nekk rek loo bëgg ñun ñu toog fii ku neex ñu def lu neex donc bu neexoon léegi ñu jot julli gay te gay jotul wala ñu jóg julli jublu nii kenn du wax kenn mënu ci dërëm lu ñuy wax dañ naan ah ñoom libre na na ah, bàyyi leen jàmbur yi libre na lu leen neex def bu ñeexee xëyee julli ñu ne baax nañ bu ñuy xëyee bañ a julli ñu ne bàyyil jàmbur talal sa bopp xalal bu borom wenn waaye jëloon oto di ko dawal sens interdit <laughs> est-ce que dañ bàyyi leen ko lu ko neex rek wuyu leen ma. lu tax ah. ñu koy jàpp. duñ ko bàyyi am na ci libre na moom moom otoom moo jënd essence def ci su benn waaye jëloon léegi voli sa xaalis indi ko ba ci digg dëkk bi teg jël essence ne da koy taal lu ñu def. moo ko liggéey moom xaalisam duñ ko bàyyi mu taal ko wala ah buñ ko jàppee dañ koy jàpp dañ koy jàpp ah lu mu def moom moom moom xaalisam waaye léegi nag lu tax ku yàq lislaam ñu ne duñ wax ak moom comme ku yàq xaalis ñu wax ak yow ku jël oto di ko dawal sens interdit ñu wax ak yow kuy def leneen lu dul ci réew mi ñu wax ak yow léegi lu tax ñu yàq diine ji kenn du wax ak ñoom amul rajo booy jël ci Sénégal tey lu dul rajo boobu am na émission njabar am na amul benn tele booy wax ci télé lu dul télévision bi am na am na njabarkat am na gisaanekat am na seetkat ah waaw lu tax da dégg benn waaye ne man ku ñëw ma yokkal la sa awra <laughs> ñëw leen ma yokk awra yi il ñii ñu ne ñoo leen ma guddal ma guddal seen fan ñii ne man maa mën lépp ku ñëw lépp lu loo bëgg rek di ko am xanaa kooku yàlla la kooku yàlla la hmm? am na benn njabarkat boo xamante ne fii la dëkk ci géej waay gi xam ngeen buntu këram tableau yi muy publicité lu mu ci bind kaafiru diin ah, waaw yëgoo ko seen koñ laa wax dafa taxu kaafiru diin la lay publicité daal mooy kaafiru diin yéen jëf leen ko def. kaafiru diin la tudd. wala tuddul noonu. lan mooy kaafiru diin yéen ñi mooy ku gëmul diine ku weddi diine kaafiru diin la tudd mu ngi nii. olof yi nee nañ booy sen da ngay faral seede du kii nee seen koñ la luye woon kon mu kon fu ñu jëm ay publicité la defoon publicité Canada dafa ngan dem tablo kaafiru diin. saa yu may xëy ma romb bunt kër gi ay fas lay rey ay nag ay xajak kenn xamul lay rey ci koñ bi waaw yàpp ñépp ñooy ñëw waaw lu ne lay rey lu ne lay rey ci bunt kër gi ak biir kër gi nit ñi di dem yaa xam nekkoon euh, mbokk yi yal na yàlla sàmmal boppam yal na yàlla aar nu waa koñ bi lañ koy jox waaw Sénégal dañoo xiif dañoo bëgg yàpp yàpp moo tax mënuñoo jaamu yàlla waaw dañoo xiif waaw imam bi moo ko war a rey nee na bu ñu jàngee li boroom xam-xam yi wax ci njabarkat mooy ala kulli xaal annahu yuqtal bi kulli xaal dañ ko war a rey bi kulli xaal waaw fal na sihra yu astiru bila sak li am importance mooy ñu wax njabar day jeexital de njabar day jeexital ku yebu boo xëyee balaa ngay génn sa kër nga jàpp def say ñaan muslu say muslu soo xëyee suba balaa ngay tëdd nga def ko parce que njabar day day jàpp bu yeboo loolu ñu xam ko yu astiru bil qalb day jàpp xolu nit day jàpp sa xol jàpp sa xel jàpp sa yaram waaw loolu bu yóbboo ngeen xam day jeexital ci xel di jeexital ci xol di jeexital ci yaramu nit li la ci musal mooy yàlla subhanahu wa taala kon nanu làqatu ci borom bi tabaraka wa taala ixwatal iman nee na day jàpp nit ki ba muy imaginer di gis di janeer waaw muy def yoo xamante ne bi mu normalee daawu ko def bi am yeneen soppeeku yu muy soppeeku kon lii mooy njabar iza qaala qaa'ilun ma wajhu idxaali baabu sihr fi kitaabi tawxid léeg-léeg nit laaj mu ne pourquoi ñiy jàng kitaabu tawxid téere bi ñu ne lan moo tax ñu jël buntu njabar dugal ko ci téere bi te téere bi tawxid lay jàngale ñu ciy jàngale njabar ñu ne lu tax lan mooy tontu bi ku la wax loolu koy tontu ah naqulu bi munasabati albaab bi munasabati albaab li kitaabi tawxid li ann aqsaamu sixr ma la yaati galiban illa bi shirk loolu mooy tontu bi mooy nit mënta njabar lu dul mu bokkaale yàlla mënoo nekk njabarkat lu dul nga bokkaale yàlla parce que jinne yi dul la wuyu si lu dul nga wedd yàlla soo wedd yàlla jinne yi def la xarit jinne yi sori de ñu ngi fii ku wedd ci ñun yàlla léegi léegi ñu ñëw def la xarit léegi boo bàyyi boo ñëwee bu ci buñ la joxee wird yi ngay wird jinne yi ñëw ñu ne la dañoo bëgg nga bàyyi lislaam nga ni waaw ñu ne la xarit suba nga commencé boo dugalee sa loxo sa poos génne xaalis bi ñu naan allah ki mooy ponkal waaw boo waxee safara di génn sa gémmi dégg ñu wax jeex na tax loolu kese la boo weddee yàlla rek nga am xaritu jinne ñii ngeen di gis fii yëpp ñuy wane ne nangam ak nangam yëpp dañoo weddi yàlla ay yéeféer lañ ñun ñëpp ay yéeféer lañ yu set wicc yoo xamante ne lislaam daf leen a war a rey kon incha allah darsu tey fii la yem ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ba classe bi ak jàmm di ñëwaat asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu